Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans votre émission édition spéciale. Et dans cette édition spéciale, nous avons le plaisir de recevoir Penda alias Bio Diouf, actrice productrice du film Une vie de bohème, qui déjà notre fierté nationale et internationale, un peu partout à travers les réseaux sociaux, à travers Twitter, Facebook, Instagram et autres. Bio, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, am nañu mbégte ak kontaante bu baax jàkkaarloo ak yow nga def sa benn musóor bu bu rafet sañse pour cent sénégalaise def sa société de classe xanaa li moom c'est la mode du cinéma sénégalaise. bonjour Souleymane maa Bonjour, chers téléspectateurs. Euh, je me nomme Penda Diouf, étudiante en yi mathématiques appliquées à l'informatique, à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis actrice et productrice du film Vie de Boy. Merci Bio. dégg ngeen ko noonu yow productrice nga ak actrice donc ñëw génnee film bu bees ñu naan ko une vie de bohème actuellement mu ngi cartonné di cartonné mais tey un petit peu dama bëggoon tey suñu doon def benn résumé ci bio naka la duggee ci cinéma est-ce que bio dafa amul parent buy def cinéma est-ce que bio dafa xëy daan def cinéma à l'école wala na la ko na la na la amee affection boobu ba mun a intégrer ci monde cinéma di def série rawatina sa film documentaire bi nga ñëw bind une vie de bohème nga xam ne donc d'après bi ñu ko seetaanee l'acteur principal s'appelle Ibou dans ce film là et puis mu nekk lu am importance parce que c'est des faits divers yi nga xam ne ci société bi la nekk nit ñi ñu ngi koy jànkoonte di ko gis man personnellement bi ma ko seetaanee dama kontaan donc mais bien avant ñu ñëw ci série bi dama bëgg tey nga defal benn résumé say nan nga intégré ci cinéma soog dugg ci cinéma nag amoo benn parent wala benn coche bu nekk ci cinéma mais je me suis dit que vu que réew mi am na ay problèmes yu bëri fi nekk yi nga xam ni nit ñi duñ ci wax je me suis dit pourquoi pas ma ñëw man en tant que jeune dugg ci cinéma jéem a wane loolu daal. ok moo tax. donc la fekk que yenn fee yi ñu ngi am ci société bi nga toog xalaat gis ni donc à travers yow ci sa capacité sa expérience donc war nga mën a nekk productrice nekk actrice aussi bind sa film donc tey euh, objectif boobu noonu c'est-à-dire est-ce que est-ce que est-ce que am nga ci ñu ngi lay accompagner di la jàppale ci loolu. Ah, gëm naa ni war na mën a jàll vu réseaux sociaux yi ni muy doxee nii euh, gëm naa ni message bi war na mën a jàll normal nag. via whatsapp facebook instagram ak yeneen ak yeneen Amis internautes de Senclic dans édition spéciale je vous rappelle que nous recevons Bio actrice ak productrice mu ñëw def film bu bees bi di une vie de bohème mais avant tout bohème euh, bëgg na signification bohème nga gën ñu ko leeralal donc suñu internautes yi gars yi ñu seetaan ñu xam lan lay signifier lan mooy bohème. en fait euh, une vie de bohème c'est une vie euh, itinérante menée hors des conventions sociales genre mener une vie hors des conventions sociales c'est-à-dire mener une vie hors norme de la société euh, fii ci film bi dañuy am euh, double marginalisation daal parce que vivre en marge de la société lañ fiy wax fii dañuy am double marginalisation c'est-à-dire euh, xam nañ ni tout individu est appelé à vivre dans une société foofu dañu fay am vive en marge de la société bu demee ba individu bi nekkatul ci société bi foofu dañ fa am violence de la société mais dinañ am tamit euh, beneen marginalisation euh, du fait que l'individu est victime par exemple euh, mën nañ jël kaawu Amina kooku victime d'une marginalisation la dañ ko torturer foofu tamit vive en marge de la société dafay am ñu ñëw tuuti ci itinérance bi fii nii itinérance bi fii dañ ko utiliser à l'état métaphorique vu que déplacement bi xale bi di def nekkul déplacement bi nga xam déplacement géographique la par exemple day quitter lieu bi dem ci lieu bi quitter waat lieu boobu demaat ci beneen lieu mais fii déplacement bi xale bi di def déplacement moral la day quitter benn état d'esprit pour beneen vu que mën nañ jël foofu kaaw Ibu mi nga xam ni déjà mi ngi nekkoon ci famille amoon na état d'esprit bu mu fa nekkee woon. Mhm, mhm. mu jóge foofu dem dugg ci banditisme. Mhm. duggaat na ci beneen état d'esprit. Ah, ci gàttal loolu rek la woon. gàddaay topp mbedd bi comme ni ko olof di waxee daal. genre li waral euh, ibu quitté état d'esprit boobu dem ci beneen état d'esprit déjà ibu dafa nekk euh, jeune boo xam ne mi ngi dund ci famille bi nga xam ne dañoo pauvre rawatina mu nekk euh, école fay parent mi amuñu moyens yi nga xam ni war nañ ko mën a yeggalil fayu école am. ba ñu dàkk ko ci aussi sa papa nekk euh, gardien benn euh, magasin mhm. sa yaay di jaay cere di mëta mëta di xool nan ngeen def pour mën a dund chaque jour euh, étan jeune ngay dund loolu mu nekk étape boo xam ne day traumatiser xale rawatina nag nga teg si violence familiale am ci kër gi sa papa di dóor sa yaay sa kanam nga gis loolu noonu yëpp yëpp yëpp ba tax benn jour nga fippu ñëw jàppanteeg paa bi ngir lan dóor bi muy dóor mère bi neexu la nga jàppanteeg moom. Mhm. ba à la fin génnam ci la ci la ci la ci la jaaree daal. Mhm. ok ok ba tey euh, ba ba ba tey ba tey bio alias Penda wala Penda alias bio bu ma neex rek parce que boo ne bio muuyu boo ne Penda muuyu donc ci biir film bi gis nañu comme li nga li nga détails yi nga xaw a détaillé léegi ci biir film bi parce que man j'ai eu la chance toog seetaan film bu baax importance film bi mu am. dafa jéggi dayo parce que bon boo seetaanee film bi bu njëkk benn jeune fille buy toog naan la non man étudiante la maa ngi jàng ba pare nekk productrice donc ñaari métiers yooyu da nga naan waaw kii est-ce que moom moo ko bind comprendre mais tey Tunguné du teew ñu nataal yaa ngi mbokk yi ñuy seetaan ñu leen fàttali ne Penda Diouf alias Bio moo nekk suñu invité tey ñu waxtaanee cinéma mu nekk li nga xamante ne actuellement nii donc gis nañ ni fii Sénégal ak fépp ci àdduna bi dafa xew donc partout foo dem ci réseaux sociaux yi ci télé yi ak yooyu ku ci nekk yaa ngi bind léegi message yi nit ñi amatuñu temps di bind ak yu demee noonu léegi dañ koy jaarale ci ay cinéma tey nag ñu ngi ciy invité ki nga xamante ne ni moom moo def film bi une vie de bohème da ko sànq ba léegi mu ngi expliqué mais tey euh, film bi bu ko seetaanee tey suñ la waxoon yan solution yi nga xamante ne ni moom moo war a ñëw à travers ci cas différent différents yooyu nga xam ne indi nga ko ci film bi tey lan nga ñuy tontu. Euh, man critique yi ma gis foofu du ma ko considérer comme des critiques négatives critiqué pour avoir l' évidence daal. Okay. genre parce que boo xoolee kaaw Ibu. mu mhm. ngi dugg ci banditisme. Mhm. lan moo ko ci fekk. Mhm. ñàkk na ci bakkanam. Euh, na bu Ibu bu xoolee loolu. par exemple beneen moroom Ibu bu xoolee loolu dina xam ne banditisme bi bu ma ci duggee. amul mucc lii moom ma ciy fekk lii moom ma ciy fekk. de même que euh, kaaw Amina moom gis nga defoon na premier abortement mu jural ko ay complications ci grossesse am mhm, avortement boobu noonu mu def mhm. beneen moromam bu ko gisee xam nga du si dugg dina parce que dina ni mhm. man suma ma lii mën na ma ci fekk ay saignement abondance stérilité mën na ma ci fekk leneen ak leneen mën na ma ci fekk kon film bi boo xoolee euh, euh, ni koy waxatee li ci positif dafa bëri daal vu que dañuy relever lu négatif mais boo xoolee ci au fond daal lu positif ngay gis euh, te solution yi moo mën a joxe fii comme xam nañ ne éducation xale yi dafay relever wu ci euh, des adultes te fii bu may wax adulte damay def euh, allusion ci ni koy waxati la famille mhm. société bi ak état bi mhm. ñi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllum éducation xale yi mhm. léegi bu ñu ñëwee ci famille amaana famille dañ ci noté baisse de l' autorité parentale manque d' éducation ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi dañuy wax ñaax parents yi rek ñu jéem a jàppale xale yi di communiqué ak seen doom xoolaat yarin gi parce que xale kenn du ko bàyyi si lu ko neex xale dañ koy gindi teg ko si yoon mu ngi noonu léegi mu ñëwee ci kaw société bi aussi parce que nit yar na doomam mhm. génn mhm. bon comme nit bañ na yar doomam mu génn mhm. euh, nekk ci mbedd bi bon kon damay ñaax société bi rek xale yooyu buñ leen dee di isole nañ leen jël boole leen ci ñun jàppale leen mhm. parce que prise de conscience collective boobu noonu ñuy am ci xale yi mhm. da leen di jàppale te mën na leen dindi ci yoon boobu noonu te bu ñu ñëwee aussi ci kaawu état bi mhm. euh, j'aimerais bien que état bi veille à ce que tous les daara soient modernisés parce que boo génnee ci mbedd bi xool xale yi seen colin seeni plaie ainsi de suite mhm. xale taalibe surtout mhm. duñu sol daal mhm. yeneen ak ma dagg la tuuti rek côté boobu gis nañu aussi tamit soo ñëwee ci kaw tali bi soo demee donc ci feu ci kaw tali bi ci autoroute bi partout nga gis xale yi xale yi taalibe yi surtout fajar gi rawatina ci période seddaay bi nga xamante ne dañu nekk donc sa yaram day daw ba nga xam ne parfois da nga naan sax donc parent bi nga xamante ni jël na doomu joxe ko est ce que mu ngi koy contrôler comme li nga doon wax sànq en tout cas franchement dama lay féliciter di la encourager parce que donc li nga bind d'habitude Sénégal dañuy gis série ay feuilleton ay affaires yoo xamante ci biir film bi donc mën nañ wax ni ñëpp du am pour mën a di mën a xam. réalité sénégalaise bu carrément mais à travers yow sa film bi donc li nga ci indi franchement donc dafa laal surtout banlieue bi wala ci yenn yenn yenn yenn yenn famille wala yenn kaay yi ak yooyu wala ci yenn gox yenn gox goxaat yi donc dama la ci remercier di la féliciter li ma la bëgg a laaj rek mooy temps bi nga xamante ne toog nga donc bind film bi donc xam nañu film actuellement nii donc pour def ko dafa dafa dafa cher xam nga ay millions mooy teg film comprendre donc ci production bi réalisation bi scénario bi montage bi et tout ça donc naka la demee. vu que film bi benn constat la rek bu ñu def ci vie bi. Mhm. Euh, sur les réalités quotidiennes. Mhm. Euh, boo gisee li bind ci film bi yëpp dafa nekk loo xam ne par exemple lu ñuy gis la. du jour au lendemain. Mhm. kon bind bi. ci dix jours la bind film bi waaw. ci côté réalisation bi côté boobu mën naa ne ce n'était pas une sinecure sur le mhm. plan financier et autres mhm. mais bon par la grâce de Dieu mën nañu wax alhamdulilah mhm. parce que maa ngi ci benn label bu ñuy wax Senclic Ciné ànd seeg samay frères samay coéquipiers ñu ma jàppale soutenir ma ba ñu réaliser film bii nii euh, yombul nag réaliser film yombul bon c'est pas facile comme ni nga ko waxee noonu donc réaliser benn produit surtout film ci domaine cinéma donc ça coûte très très très très pour produire benn film rek ça coûte million millions parce que boo xoolee euh, équipe bi dana taxaw di nga def sa casting sélectionner say équipe xam nga technique bi taxaw ki yor son kii yor perse comprendre kii di cadré nga pare montage bi parfois nga def benn séquence boo xamante ni di nga yendu di jouer mën nga def une heure de temps ci benn séquence donc franchement c'était pas facile parce que man bon comme man ñëw naa assister ci seeni tournage yi xam naa ni yombul nga pare montage et tout ça mais dañ la ciy féliciter di la ci jaajëfal di la encourager franchement gis nañ sa njàmbaarte ci et ci sa xarañte parce que li nga bind ci film bi c'est très important aussi donc di di di la di la di la di la encouragé bu baax mais tey su ma la waxoon say say projet futur ci film tey donc lan nga may lan nga may wax lan mooy sa projet xam nga lan mooy sa ambition ci cinéma lan nga bëgg a wane loo xam ne c'est du nouveau à travers yow donc ci métier bi nga xamante ne nii yaa ngi koy def. ba ci projet futur yi moom gëm naa du ci wax lu bari. Mhm. juste di wax euh, àdduna bi rek nañ ma xaar fépp daal. parce que dinaa def problème nit ñi sama problème. Mhm. def sama problème problème nit ñi. Mhm. ñu jëlee ci tamit ay solution ak yeneen yeneen ba nga xam ni. lépp luy xeetu ñaaw ñaawteef dina mhm. dina génn ci réew mi daal. donc wax nga ko sànq ci ay projet futur yu war a ñëw ci kanam tuuti donc ba ci génn bi sax te présenté euh, une vie de bohème film bi nga xam ne bind nga ko au niveau international ci ay festival donc léegi équipe bi ci kanam tuuti danañ taxaw mais tey euh, lan mooy lan mooy objectifu film bi Je veux à travers ce film que chacun mmh. la souffrance euh, de ces jeunes mmh. qui sont dans l'incapacité d'exprimer leur souffrance mmh. et mhm. leur besoin d'aide. Euh, et que aussi la responsabilité de tout un chacun y est. Mm-hmm. Mm-hmm. ok xaritu internet yi gis ngeen donc lii lañ leen indi woon ci édition spéciale suñu gan bu mag bi nga xamante suñu xarit suñu jigéen euh, di actrice ak productrice ba pare nekk étudiante di Penda Diouf alias Bio moom lañ sekk noon waxtaan bi doon waxtaan ci wàllu cinéma nga xam ne bon bokk na ci liggéey bu am solo te day doog a door une vie de film bi nga xamante ne actuellement disponible na donc xam naa ci kanam tuuti dina wax donc ci yan place lañ a mun ak dégg fi projection ñi seetaan si tamit dem présenté ko ci ay festival un le monde donc loolu lu rafet la bio ñu ngi lay sant di la gërëm di la remercier ci sa engagement aussi ci sa disponibilité parce que donc c'est pas facile ak fi ñu toll rawatina donc ci année scolaire bi da ngay jàng donc xam naa ni sax bon ah yaa ngi ci vacances mais bon du ñàkk nga toog parfois xool ci kay ak yooyu di la encourager bu baax a baax parce que bu may wax ni donc Sénégal ku ci nekk soo doon def ni fa nga nekk ci la nga nekkee nga fexe fa liggéey réew ci nii laa koy wax ay jeunes yi nga xamante ne ni tey ñu ngi créer ay mbir di jóg xam nga di liggéey di wane seen i seen i seen i cofeel di liggéey pour Sénégal donc loolu dafa am solo. Mm-hmm. aussi ñu ngi lay sant di la gërëm ci kanam tuuti xam naa ñu bàyyi la nga def sa mot de la fin et puis remercier ñi doon seetaan nuyoo. Mm-hmm. donc mais li ma lay wax daal mooy maa ngi lay encourager bu baax a baax ci yoon bi nga jël. parce que donc am importance ci société bi nga donc mënu wax nag sans autant bañ a remercier suñuy partenaire 6 point 9 nga xam ne ñoom marque vêtement la boo xamante ne gis ngeen ni ñu mel ñoom ñoo ñu ñawal li mën na dem ngénte mën na dem cérémonie mën na dem takk mën na dem fu nekk et euh, kilifa diine bu nekk war nga ko mën a sol parce que dafa rafet et puis ay jeunes ñoo ko encadré di liggéey liggéey bu rafet liggéey bu mucc ay ñoom it ñu jar a encouragé la ci réew mi parce que damay wax ni développement dafay commencé ci ndaw xam nga bu ay ndaw di jóg ndaw bu mel ni bio li bind une vie de boyam ndaw bu mel ni waa 6 point 9 di ñëw du rafet nekk ci boutique bi fii c'est très important donc ñooñu jar nañ encourager leen donc ñu woo ñëpp ñu ngi fii ci Scat Urbam ku bëgg a def sa commande nekk fii ci réew mi nekk bitim réew aussi mën nga def ci seen site bi 3w 6 point 9 point sn soo demee di nga def say commande ñu livrer ko ci ñetti fan kese ba pare foo mun a nekk mën nañ la ko dans 3 jours via DHL ok ñoom nag euh, ñoom ñoom nag seen numéro de téléphone 480 17 06 donc 497 06 donc pour le diaspora ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan un peu partout à travers les réseaux sociaux à travers senclic.com donc mën ngeen dugg ci seen site bi def seen commande 3w 6.9 point sn donc ngay def say commande et puis ñu livrer la ko dans trois jours ñu livrer ko dans 3 jours via DHL mbokkee xarit yi lii la woon ñu ngi leen di sant di leen gërëm am mbégte ak contentement bu baax a baax ah, di leen wax ni projection yi rek nañ ko xaar fépp daal fépp fu ko mën a tasaaree ci réew mi rek dinañ ko def parce que bëgg nañ ñëpp jot ci seen wàll. di remercier équipe technique bi bu baax euh, maa ngi remercier Souleymane Ba di remercier Ousseynou Mangane Gaston Bakhoum maa ngi remercier aussi Babacar Hott ak Chérif Ndiaye mi nga xam ni ñoom laa àndaloon ci liggéey bi. Euh, di remercier samay xarit maa ngi remercier aussi Alsane Balde ak euh, monsieur Thioune mi nga xam ni mooy sama professeur di remercier sama waa koñ waa xaar yàlla mention spéciale à la famille Diouf du côté de mon père et la famille Diène du côté de ma maman merci